3 maa la ko wax li doon xaar ci ay weer doon ko xaar ci ay bis doon ko li nga xamante ne bii waaw mooy ay semaines yu bari ay laa ilaaha illallah sa waaye ngi génn pétard yaa ngay jolli maa la ko wax cey loolu cey Balla Gaye aka man bis mbokk yi aka fonk bis mi ngi noonu cey sëriñ ñoo ko gisandoo oh. Babacar ñoo ko gisandoo maa la ko wax Babacar ñoo ko gisandoo destination arène nationale arène nationale lañ dem mbokk yi maa la ko wax destination arène nationale. combat du nouvel an. premier combat ci at mi. Fadel nee ma ku ci daanu da ngay continuer di daanu rek. maa la wax loolu at ngay daanu. at mi yëpp da ngay continuer di daanu ba 2024 da ngay daanu. maa la ko wax. waaw. ah kon de tey bésub rayante la moom. mi ngi noonu. mbokk yi ñoo ko gisandoo. lu gaay naan wala ba dem na tëng waxi mag dem dañ gaal yi xaw ma bàkk ba wër naa bàgg war na mbaam lu waaye doon jaay léegi mu lamba maa la ko wax ki ñu doon xaar pour mu génn ki doon xaar di bi sànq ba léegi Babacar pour mu génn yéeg oto yi waaw waaw waa de koo koy doon mu dubal les bi Babacar ñu koy woowee du ci dubal les moom Balla Gaye 2 le tombeur de Modou Xarañ Lo moom Balla gay 2. Cey Balla. hee le moom Balla Gaye de Ousmane Diop. hee man le tombeur de Baboy moom Balla gay 2. le de Tyson moom Balla Gaye Ndaw Tyson moom Balla Gaye 2. Cey Balla. le tombeur de moom Balla Gaye 2. Cey Balla. le moom Balla Gaye 2. waaye la tomba da Samba Lawbe moom Balla Gaye 2 mbokk yi xale boobu mooy waaj a génn waaye ku muy jàkkaar lool euh, kookoy fils de Dégol Boy Niang la tomba da Sa Thiès Boy Niang mbokk yi mu daan les de ah, mbokk yi Boy Niang mi daan Baye Mandione yi Boy Niang mi daan Brise de Mer mbokk yi Boy Niang mi daan Dolfa mbokk yi xale boobu tey la Balla Gaye war a jëflanteel foofu sa arène mu nar a nekk combat de tactique Euh, combat de domicile la si ñaari mbër yi Balla Gaye 2 ni ko tey Boy Niang nga xam may kan waaye GFC woyal Boy Niang nan ko Boy Niang ñu rey la euh, Balla Gaye 2 ni ko tey lépp lu xew sa làmba ja koy def dina ko def du ko def waaw jibi borom kooku ba génn na jibi borom kaw gee ngi noonu jibi génn na kaccab génn na hee kër Balla Gaye 2 mbokk yi Aziz Ndiaye ngi noonu borom kaw gee mi ngi noonu di génn jibi nee na leen gaa yi tijji leen porte bi nee na gaa yi tijji leen porte bi mbokk yi Balla Gaye 2 ngi waaj a génn

waaw waaw ku def lii ku Jibi Balla Gaye jël génn na. Balla Gaye génn na. loolu yooyu laa. Balla Gaye jël noonu mbokk xale ba daa tentar. xale ba daa tentar ak Jibi. Balla Gaye jël noonu. tey ba leen fem la génnaatee. t-shirt bu balaa la sol. Rango Senghor ya moom Balla Gaye 2. Ah, mi ngi noonu sa kese si kanam taxaw. Boucher ngi taxaw si porte bi. waaw ah, bis ba jot na ah, mbokk yi heure bu baax ba egsi na ah, mbokk yi date historique mbokk yi le premier janvier an Balla Gaye 2 Boy Niang eh, arène tey mbokk dana wàcc tey arène nationale dana wàcc borom kagul gi ngi noonu jibi est-ce yaa gi mi ngi noonu taxaw di wax ak gars yi borom ngi noonu taxaw di wax ak gars yi Balla ngi noonu yaayam mi ngi koy sotti li nga xamante ni mooy saafara ba jibi koy sotti saafara yaayam sotti na ko ba moom Balla Gaye 2 wallaahi xale bee ngi noonu koy sotti saafara loolu lu ñoo de Guédiawaye Balla Gaye 2 sey njureel eh ak njureel moo tax moment bi ba sa yaay dalay assister dalay dar moo tax yërëm naa ñu ñàkk yaay ndeysaan ñu leen di masawu bu baax a baax yéen ñi ñàkk waajur bu jigéen ñoo di masawu Balla Gaye 2 noonu bopp ba Balla Gaye 2 ngi noonu ba léegi mbokk yi cey le premier janvier sëriñ nee ma histoire da koy bind l'histoire retiendra maa la ko wax maa la wax loolu Babacar Balla Gaye 2 ngi noonu mbokkam yaa ngi noonu taxaw di ko wayal ñoom Andaw Ndiaye ñoom Sathiès ba si borom kagul gi ñëpp ngi taxaw eh moment bi si tolloo ndeysaan ñu la bëgg dañuy sonn ñi la xam dañuy sonn ñiy far ak yow dañuy sonn ñi lay topp dañuy sonn waaye ba duggee si géew ba benn une heure temps nga def lamb ja daal jeex chargé ba daal di teggeeku waaye soo daanee ah mbokk yi ambiance bi lan demee commencé bu duggaale loolu dara dàqu ko waaye suñ la daanee doo bëgg a génn sa kër ndax da xalaat soo génnee lan ngay waa koñ ba ah bala ngi noonu. am na lu ñu koy sotti moom Balla Gaye 2 yaay ji am na lu mu koy sotti mais lu ma jaaxal borom tëggul gi tey gisaat nañ ko fii bu nu kër Balla Gaye 2 mu mel ni ni mbokk yi dafa fas yéene moom fi nga xamante ni mooy Boy Niang ngi Pikine di waajal Balla ngi géejuwaay di génn këram moom Balla Gaye 2 hee jibi fils de Balla sotti na ko ya maa la ko wax ma nga noona Balla ngi noonu ma ngay waajal fan la jëm hey Balla Gaye 2 xale yaa ngay way gaa yaa ngay way waykat yaa ngay way ñaan Balla jël ndam ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom nee na loolu Balla la xale yi di way nekkul lu bees ci moom loolu booy na ay noppam way mu tàmm la bilaay ndeysaan Balla ngay génn. Balla Gaye doo ngi noonu. le fils de Double Less. Euh, cokkali. Balla ngi noonu mbokk yi. Sa Thiès sa taxaw ca buntu ba. ndeysaan wax nga dëgg. pour mu génn. pour mu daal di génn. Baye Ndiaye Balla noonu. Balla nga noonu ca buntu noonu taxaw. Balla ngi noonu taxaw na Balla ngi noonu si bunt ba taxaw Balla Gaye doo ngi noonu eh xale bi mais xale bi boo ko xoolee tey nga xam ni pare na pour jàkkaarloog booy Niang xale bi boo ko xoolee tey nga xam ni combat bi ñor na ko xale bi boo ko xoolee tey nga xam ni ay mbokkam ànd na ñoom bëggal ko combat bi comme ni nga ko bëggee. waaye xale bi boo xoolee tey nga xam ni combat bi respecté na ko respecté na adversaire bi di Boy Niang am na lu mu sànni si xibla ñaari yoon ñetti yoon ba si ginnaaw loolu la ko Massata Alé Ndiaye wax Balla ngi noonu sotteekoo na ba leen butéel ba Balla ngi noonu mbokk yi jëlaat butéel ba daal di sotteekoo ay Balla Gaye 2 mi waaye cey Boy Niang Balla wàcc na Balla wàcc na Balla wàcc na taxawaat taxawaan na sa porte ba am lu ko bouché di xëpp moom Balla Gaye 2. génn na kër gi léegi na kër si buntu ba am na lu ko bouché xëpp Balla ñu noonu yëngal na bopp bi na bopp bi day taxawaat wax ak supporter yi wala lu mu demee noonu. cey lamb ji lan moo ci oto bi. cey lamb tey ji. cey lamb tey jii taxaw na taxaw na wala day dem taxaw na. dugg na dugg na si oto bi moom Balla Gaye 2 jibi ñu dem stade. Babacar gis nga Balla Gaye dugg na si oto bi stade la jëm. mbëru xaasu ma dugg na. mbëru ñaari seexu yàlla ya dugg na Ousseynou ak Assane Balla duggaat na si oto ba ànd na oto baa ngi nonu oto bee ngi ram oto baa ngay ram ndax. Marouba chéri Kia. noir et